boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàtte bés fu def cloche bi foo leen mën ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman akrimu bi sari mawlidi man fil bahri asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawu Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaa yu màggal Touba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ Afia Bousso imam mi jiite daayira bi ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën na noo wéy di yónnee seeni i barkeelu si transfert bancaire si compte association nationale muqaddimatul xidma Espagne ci Caixa Bank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Biki Swift Caixa Bank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 képp ku soxla yeneen i leeral jokkoo ak daayira bii si numéro yi ñuy bëgg joxe mosquée Touba. 77 434 33 15 wala si 76 697 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 Jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi dinga feeñ ba faw yàlla nañu yàlla dimbali.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 ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel moo tax suñu borom waxoon ci alquran ne seeni doom ak seeni alal fitna la doom yi fitna la alal yi fitna la doom yi moom ku ne xam na fitna la rawate na nag yu ndaw ñi doom yu ndaw yi ca mel na man ci dëgër bopp ca kenn mu leen wàññi ban jaar ci yoon la kon ñooñu ay fitna fitna lan ca ña nga xam ne ñoo leen jur di seen kilifteef waaye alal it fitna la fitna alal nag bokk yi dana yóbbu nit ki ba tax li mu war a def ci digganteem ak boromam ci alal ji du ko def waaye li mu war a def ci alal ji ci digganteem ak mbindeef yi du ko def waaye wutin wa ak amin wa wutin wu ñaaw nag bokk yi amin wu ñaaw rek lay lay jóg moo waral yonent bi salaa salaam bi ñu dañu moytandikuloo fitna jooju xamal nañu ne fitna kat day lore waaye bokk na ci fitna li yonent bi salaa salaam di moytandikuloo mooy fitna yi alal ak bëgg alal nga xam ne léeg-léegi doomu aadama bëgg gi muy bëgg alal alal xarisa lay doon ci jëmi boppam moo waral alal dañ moo mooñaale ak bakkan fa ko faqat jubilatu nufuus alal des ko moo mooñaale bakkan ma waral suñu borom wax ci alquran wa takuluna turasa akalan lamma waaye nag wa tuhibuuna almaala xubban jamma wa tuhibuuna almaala xubban jamma moo loolu loolu aaya boobu moo lay xamal ne alal wal maal jubilat bi nufuus moo tax yonent bi sansan wax ne doomu aadama bu amoon ñaari xur ci wurus ak xaalis faaw mu jéem a ñetteel soo amee ñetteel faa mu war a jur faa mu jëm a wut ñeenteel boo amee ñeenteel faa mu war faa mu wut juróomeel nga xam ne doomu aadama dara mun a fis biiram la du suuf moo waral fan yi bokk yi yéen a ngi dégg ci réseaux sociaux yi nekk wala ci télévision yi ñu di ko def ay plateau wala ci internet yi moo xam ci YouTube bi la wala ci Facebook bi wala lu ma doon ay sénégalais yoo xam ne. dana dem Dubaay di jaay seen bopp ngir alal dana dem Dubaay di jaay seen bopp ngir alal Côte am na ca Sénégal am na ca yeneen dëkk am na ca lu mat 43 personnes ci ay sénégalais yoo yoo xam ne buñ tàggoo fii di dem Dubaay lañ fay wuti mooy jaay seen bopp ngir alal na ni jaay seen bopp nag bokk na ci di séy ay mala wala ñu nangu ñu leen di fay alal. di dem kër ci seen i seen giñim wala ñu fay tur ndox ngir sàkku ji alal bokk yi wutin wu ñaaw amin wu ñaaw ca ñu bàyyi xel ne loo bari la bari la bari boo demee ci armeere fekk ku la ëpp la fu ma nga fa tëdd loo néew la néew la boo demee ci armeere fekk koo xam ne moo la gën a néew la fuuf ci ma nga ci tëdd ñoo ñooñee tëdd foofu ba la gën a fa tëdd yow kon li ngay sàkk na nga ko sàkkoon ci sàkkin wu leew bokki si borom pare na ci lépp sëñ Tuubaa nee na woon yàlla pare na ci ñeent ca ba mu bindee xalima gale ko damm ca dootu ko bindaat muy dig bi ngay faatu bind bi mu la bind wërsëg bi ngay am jukko ji ngay am yàlla moom ko bindee la ci pare wa ma min dabbatin fil ardi bokk yi illa ala rizquha luy dikkati ci kaw suuf yàlla moo wërsëg moo yor sa wërsëg kon nan xool ni ñuy wute alal li muy neex neex ci bakkan bokk yi bari na ci ñoo xam ne bokk yi boo leen dee seetaan ñu naan damaa bëgg a yóbbu sama yaay màkka gi nga paa bi man ndong maa ne ci kër gi maa ko war a dimbale nangam nangam mais li nga war a dimbalee paa bi yóbbu sa yaay sa baay dem di ko wute ci loo xam ne baaxul lu jariñ sëñ bi dem juga fii dem ba Dubaay ñëpp di dafa la ngay liggéey ca ba wax nga ne damay dimbale sama baay dem di sëy ay mala ah loolu alal jooju jar na ko image yi ñu ngi ci internet bi bokk yi plateau yi ñu ngi koy def ci télévision yi ngir doon ngir alal kon fit fitnay alal bokk yi ñu bàyyi ci xel ca jullit yi ci bari fii jamono toll alal jiite na leen seen diggante ak seen boroom alal jiite na leen seen diggante ak seen moroom alal sax day dem ba teqale leen seen ndey ak seen baay ngir sàkk nu alal rek moo war a yonte bi sax sama doomu aadama bu amoon ñaari xur ci wurus wala xaalis du doyal mukk dara mënut a fees biir doomu aadama lu dul suuf képp moo ko mën a fees l'islam nag wit alal alal xéewal la doom xéewal la waaye sakkin wa ak wutin wa ak dajal yi wala l'islam di ngañ ndax kasbul xalaal wala talabul xalaal lu dagan la sàkku lu dagan wut lu dagan loo dundee lu baax la Seydina Omar ibn Xattaab nee na maanaam jar na sol dal li ba mu dagg ngir wut loolu dund sa njaboot waaye nan xool léegi li ñuy li ñuy li ñuy wute alal di ko dundale suñu njaboot bari na ci ñoo xam ne buñ génnee seenum réew dem bitim réew lu leen yi may alal seetuñ ci lu daga nag lu dëggu dañ koy wut nu mu ko amee rek baax te te lislaam dafa am ay jàngale lim jàngal li sàkku alal bari na ci ñoo xam ne ñu ngay sàkku alal alal jooju sawara la ci ñoom donte dañ koo barale moo xam da ngay jaay dorog moo xam da ngay jaay sàngara moo xam da ngay dem comme nii xew ci jamono jii 43 personnes ci Sénégal nekk Dubaï gee di sëy ay mala ak di nangu yoo xam da nga koy am dégg nga moo xam yu mel noonu bokk yi képp koo xam ne jaay nga sa ngor ak sa diina ngir alal bi sa ñëw da ko réccu te jullit yu bari bu ñu génnee fii seen réew jaay seen ngor ngir seen alal ngir alal jaay seen jom ngir seen alal jaay seen fulla ngir seen alal di junde loo xam ne bokk yi baaxul nañ ciy bàyyi xel te loolu am nag. loolu ma am ma waral maa ngi leen di fàttali di fàttali sa bopp ku ngeen gis mu yori 4-4 tabax ay étages yori ay jongama ñu ci bari jëriñoo ñee la ñuy baatu baaxu la ñuy sàkku baaxu ci lu ñaaw képp la ci leen amee alal riis nag bokk na ci mooy riis doomu aadama bokk na ci doyloo yàlla lu mu am mu doy ko loolu mooy riis loolu mooy alal loo bëgg a faju tey jii mu faju loo bëgg boo bëggee lekk lekk boo bëggee naan naan diirum liirum ngay dund nga di ko dund ca di ko sacrifice la bokk yi loolu mooy riis waaye dajale lu bari loo xam ne tey jii bu àllëgee lépp ay jumale doon dara baaxut loolu baaxut ca bari na ci ñu bàyyil alal seen doom ñu di ko dundee lan dajale seen doom dara baaxu ci moo tax bari na jamono ji ñuy tàllal loxo yi naan yaa rabbi yàlla ne leen déedéet wa mataamuhu xaraamun wa masrabuhu xaraamun fa ne su jaabu yow la ngay dund la ngay sakk la ngay lekk léw la ngay naan léw la ngay liggéey liwul da ngay lijjanti liwul yàlla nee na kooku nan laay nangoog ñaanam lan laay nangoog ñaanam kon nan bàyyi xel ne fitna yi alal am na ci jamono ji ndaw ñëpp ay milliards ay mili ay mili ay milliards lañ bëgg am ndaw ñëpp ay millions lañ bëgg am te seetu ñu nan koy sàkkoog nan koy wute boo ko yàkkam di baaw ku yàlla bind ci kaw suuf ngay doomu aadama yoon saa saasam nee na kenn sa wërsëg dafa jeex ci réew mi yàlla na ma nga nga dem fa jël fa sa wërsëg faaw da nga dem jëli ko waaye nag nan bàyyi xel li ñuy sàkkoo alal ji ak ni ñu koy wute nan ko dem ci bàyyi xel ca 43 personnes yooyu bokk yi ma tudd fukki ak ñett ay miis lan ca lu bon la ni solo jaay jaay leen ñenn ñi ay tiktokeur leen ci tiktok tiktok ci tiktok bi la nekk ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ñenn ñi ngir lan ngir sàkku ji alal bu dikkee nag jox seen baay seen yaay ñu naan cey sama doom ji moom da am na jom moom da nangam ay lam fa nekkee boo ko xamoon alal ji doo ko lekk jaay sa bopp ay mala ñuy tuur ndox sa sa sa ak li ci def nafara ak yeneen ak yeneen ak i dóor ak i duma ngay indi alal ji naan la cey kat kat yeeg étage yi ñooñu jëruñoo ñee de ñooñu jëruñoo ñee te fi mu toll nii ci jamono ku yëgut na loolu mi ngi xew mi ngi xew ci Dubaay gii ngir fitnay mbaam bokk yi yonent bi saa sallam nee na benn jaam ëllëg du jéego ab jéego yowmal qiyam lu ñu dañ koo laaj dundam gi ci lu mu ko jeexal sa dund gii la yàlla jox ci loo ko jeexal ndax ci làmba ji nga ko jeexal ndax ci fecc mi nga ko jeexal dégg nga ndax ci wut lu bon nga ko jeexal ndax ci ndax ci ndax ci yàlla dana laaj si dund gii ba ma la ko jeexal loo ko ci loo ko jeexal an umri fi ma afnaaw bu boobu jàllee mu ne la waaw alal ji noo ko fàggoo ak bi nga ko fàggoo fan foo ko def ndax ci lu dagan nga ko fàggoo bi nga ko amee ba noppi ci loo ko def moo war moo waral lu mat a bàyyi xel a ngoog waaye jël bi rodo rek loo romb yóbbu ñu naan di millionnaire bi millionnaire la wala milliardaire la ngay xugu xugee nga sugg sugg fekk ne la ngay lépp dara baaxu lu mat a moytandiku la yonent bi saasam suñu borom nee na koon yow Muhammad bu la neexee doj yi ak garab yi lépp doo xaalis ak wurus doo soxla dara mu ne ko def ma bu tayee ma am bu àllëgee ma ñàkk bu tayee na am bu ëllëgee ñun nag kenn bëggu a ñàkk am rek am rek am rek jàmbat ji gaa ak jàmbat gaa yi jàmbat rek dëkk bi neexut nanga ak nangam nangam ak nangam dégg waaye dëkk bi bu naqaree mu tax nga wuti wuti wu ñaaw wala nga sàcc alali jàmbur dégg nga wala nga triandé alali jàmbur wala yu mel noonu ca loolu moom rek moo xew fi jamono toll lool nag bokk na ci aaxiru zaman kon ñu bàyyil xel loolu sa yaram wii tamit des laaj foo ko rappal bokk yi yonent bi sansam nee na woon xeet woo gis am na fitna jun inna li kulli ummati fitna wa fitnati ummati almaal nee na bépp xeet bu mu yàlla mas a yónni ak ca njugooni nee na fitnaa nga ci nee na ma yonent bi sansam nee na fitnay aw xeetam mooy alal ca waxal dëgg nag yonent bi beeg sadaqallahu wa rasuluhu yonent bi beeg wax dëgg moo teree nelaw ndaw ñi moo teree nelaw mag ñi dégg nga kenn ku ci nekk yaa nga fër-fëri ngir alal jaamootun yàlla dégg nga ci lu bare bare bare ngir alal rek yonent bi saan inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almaal nag bokk yi boo ko sàkkoo sàkkin wu lew yàlla jox la ko joxin wu lew nga def ko ci topp yàlla su borom tàggatal la bu àllëgee ngërëmam nga tàbbi àjjana waaye boo ko sàkkoo sakkin woo xam ne léwut ba noppi def ko ci ak mooy yàlla bu ëllëgee yàlla tàbbala sawaraam waliyaasu billah bokk yi bokk na ci xéewal yi gën a màgg ci xéewal yi mooy xéewalu alal joo xam ne da ko koo sàkk te wu leew su borom nee ne alal ak i doom taaru àdduna almaal wal banuun ziina taar la ci àdduna waaye nag taar boobu nag bokk yi fexeel ba taaral ko ci ni ko yàlla taaral bañ koo taaral ci ñoo xam ne taaru ci yàlla taarawu ko noonu lii may wax nag ndaw ñi laay waxal ñun ndaw ñi ci boppam moom ma tax di wax ndax ndaw yi ci boppam ñooy lijjanti visa yi bëgg a tukki ñoo ne ci dëkk yi di ambila ñoo ne ci ñoo ne ci commerce bi ñoo def nangam ak nangam ñoo naan kenn ku nekk yow nag dama bëgg a tekk sëñ bi tekk di noonu toq toq moo gën yu réet toq toq moo gën yu réet na ni toq toq waaye yu bari na ci ñu xëy yu réet ñu xëy leen jarax te bëgg yuréet da nga leen ko wural te ndaw ñi ci bari yuréet leen bëgg bëgg ñu doq doq de yuréet ku xëy yuréet nag tey sotti sàq rek kon nag sëñ Fall nee toq toq moo gën yuréet sëñ Fall nee toq toq moo gën yuréet lu may am na ko doyloo kee mum téeméer na ko doyloo kee mum ñaar na ko doyloo kee mum junni na ko doyloo kee mum million na ko doyloo can bàyyi tiriyaa gi ak leb gi bor ak sàcc bi ak wutewun wu daganut bi ak yu mel noonu coono lépp mi ngi xew na ci jamono lañuy ñuy wax nag yéen ma ko gën a xam mbokk yi moo tax yonent bi saa salaam nee woon suñu borom nee woon yonent bi wa wajadaka aayilan fa aghnaa ndax fekkuma la woon nga ñàkk ma ma omal la mënu ko akay ah, omal nga ko yàlla omaloon alal jam ko joxoon ñu bàyyi ci xel moo war a saxaaba yi saxaabatu rasul yonent bi saa sama yi nga gisoon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ña daan commerce ñëpp nan daan commerçant ñu daggan nan daan commerçant di am ci di ci am seen wërsëg di ko jur naa na ci tuddal kenn képp Abdourahman ibn Awf bokk yi Abdourahman ibn Awf ab commerçant la woon xam nga bin yàlla bin gàddaayee Màkka ñëw Madina yonent bi def al muaqat bal bayna al muhaajir wal ansaar bokkoo di leen boole ñu ay ñu doon ay bokk ku am ñaari jabar wàcc benn jabar iddaam jeex nga may ko sama moromu saxaaba ku am ñaari bitig génn benn bitig ba may ko sama moromu comme ñaari kër génn génn kër ga ko sama rom saxaaba ndax loolu mi ngi amati da ngay bokk ak nit ki ndey ak bàyyi nga am néegum ñax mu am ñetti étage di luyee lee sa bu bu yàlla di tawee muy senn ngay dem ngay dem di foo dëkk sa yéen a bokk ndey ak bàyyi a bokk bàyyi a bokk nangam ndax loolu mi ngi amati bokk yi da ngay gis ñaari kër sa rakk amul fu mu dëkk nga ñaari biti sa rakk amul fu mu liggéeyee muy tumuraange saxaaba yi ko ba leen yonente bi di mbokk mbokkoo nii leen njëkk a mbokkoo comme ñaari biti da ngay génn benn jox sama rom saxaaba ku ñaari soxna wàcc kenn iddaam jàng may sama rom saxaaba dégg nga Abdourahman ibn Awf kenn ko booleel dana ko wan ma jabi marsa bi ma dem di liggéey rek jërëjëf ci ci li la yonent bi booleel mu wan jabi muy dem di commerce téeméeri gileem lay jënd gileem gu ne téeméer la koy jënde te gi bu jaayaat gileem gi téeméer la koy jaayee téeméeri gileem gileem téeméer mu jaayewaat téeméer lan mooy bénéfice bi nekk dana takk ak buum bu noppee day tekki buum yooyu jaay ko bénéfice am muy bénéfice am ca la mujj yàlla may ko mu ci richesse mag bëri alal lool yonente bi ne raaytu abdourahman ibne awf yadxulu jannata habwa nee na gis naa abdourahman ibne awfin bi muy dugg àjjana doon raam ñu ne ko li tax mu ne alal jëg iman bi ñoo doon xëccoo kon nag bokk yi nan bàyyi xel loolu kon nag alal fi mu toll nii ci fitna yi gën a metti ci àdduna ci la bopp teqale na diggante ndey ak baay doom ak baay doom ak yaay yépp alal teqal teqal na leen cofeel gi waroon na dox seen diggante bari na ci ñoo xam ne alal teqal na seen seen seen famille na ju mat dugg ci seen biir dégg ak noonoo ak bañante ak rayante ngir alal léeg-léeg nga dégg ñu ne diw ray na nit lu ko lu ko damaa ameel bor damaa nangam ak nangam ci lépp boo duggee ci biir fa kër famille yi gis ko ci ñoo xam ne alal képp leen teqale dimbalanteetuñ dégg nga def leen dentu lu baax yooyu yëpp da ko da nga ci gis te loolu dara waralu ko lu alal jur leen teqale kon loolu war nañoo dellusiwaat suñu xel ca xam ne ca xam ne yàlla bakkan bu mu sàkk dana ko jox lu mu dunde eh, ba yàlla bakkan bu mu sàkk dana ko jox dana ko jox lu mu dunde fal taalamanna bi anna risqa munqasimun yaati ilayka walaw fii jëppatil asad gis na sa wërsëg bu nekkoon ca jiw gaynde danga dem ba jël ko ca gaynde ga ca gaynde ga du la laal kon lu fa jar yenn yi bokk yi lu fa jaay jër jaay sa bopp lu fa jar sàkku sàkkin wu xaraam lu fa jar fa jar jaay lu bon ban lay tëj ci koso bi wala dootoo mën a delloo ci réew ma nga nekkoon wala dootoo mën a ñibbisee loolu lépp dara jaru ko fi nan sàkkul sàkkin wu lew su borom nee na yéen ñi nga xam ne da ngeen gëm alal ji ak doom yi bu mu leen teree ngeen jaamu ji yàlla alal ji ak doom ji bu mu leen teree ngeen ngeen def lu baa alal ji ak doom jii bu mu leen tere ngeen dox mbokk alal ji ak doom yi bu mu leen teree ngeen nekk ca la ngeen war a nekk laa tulhikum amwaalukum awlaadukum an zikrillah kon nañ ci bàyyi xel képp ko xam ne nag da ngaa def loolu loolu dafa laa tere yooyu yëpp foofu laay kumul xaasiruun ñooy way pertaanga yooyu moo tax yonent bi saa sama ne noonu joo xam ne nit ñi duñ duñ duñ bàyyi xel ci nit ñi wutee ndax lu dagan la wala lu araam la ndax lu dagan la wala lu araam di déedéet xoolal xaaruna xoolal xaaruna ma agna anni maliya halaka anni sultaniya xuduuhu fa xuluuhu suma aljahima saluhu suma fi silsilati zarha sab'una ziraan faslukuhu xaaruna rashida ngoog xoolal xaaruna alal ja dam bare woon juróom-ñaar fukki bëx la ñu daan sëf sëf sëf lan sëf caabi yi ay ponkal di ko yëkkati nu mujje kon nan dellu si waat suñu xel ca jàmm waat ji yàlla ca xooli sàkk ni yàlla nu yàlla dafa dégg ak topp rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina batila batila warzuqna ijtinab wa ma dhalika 'ala bi 'azir طول لنا ودمرا كل أعداء تدر بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله وكن معيسا لنا من شر حسد مع شر فم وشر عين يا الله وشر سحر وشر قلق إنسهم مع جن وضوادهم يا الله أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين boo leen bëggee am mbooleem vidéo yi bàyyeekoo fii ci Istikhama TV da ngeen di bés fu ñu bind abonné bu leen fàttee bés fu ñu def cloche bi foo leen mën a ne ci àdduna bi ngir ngeen mën a am mbooleem vidéo yi fi bàyyikoo wajjahtu wajhi liman asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu mbokk julli di mbokk taalibé yi yéen ñi bëgg barkeelu si liggéeyub taxawub jumaawul Touba jëm si entretien wala maintenance wàccaayu màggal tuuba dundal weeru koor dundal gàmm saytu armée lu baqiya yi taxawu personnel bi si wàllub social ak yeneen waa association nationale muqaddimatul xidma Espagne ngir indi ak jàppandal si liggéey bii si ndigalu sëriñ afiya buso imam mi jiite daayira bii ñooy yëgal mbokk taalibe yi nekk si diaspora bi rawatina waa Europe ne nag mën nanoo wéy di yónnee seeni i barkeelu si transfert bancaire si compte association national muqaddimatul xidma Espagne ci CaixaBank numéro ES 17 21 00 15 11 87 02 00 500 647 Bici Swift CaixaBank BBXXX mbokk yi ku si nekk si Sénégal mbaa ci Afrique compte Orange Money yi mooy compte yi nekk si moomeelu daayira bi di 77 696 86 17 képp ku soxla yeneen i leeral jokkool ak daayira bii yi si numéro yi ñu bëgg joxe mosquée Touba 77 434 33 15 wala si 76 697 60 41 bu dee Europe jokkoo leen ak Serigne Assane Diop si plus 34 632 581 998 Serigne Fallou Dia plus 34 631 216 262 jumaay Touba ji nag Serigne bi nee na yàlla sunu borom may na ma ab tabax bu ne seng bu fi des ba aljana waxoon na it ne ku feeñ si liggéey bi. yi nga feeñ ba faaw yàlla nañu yàlla dimbale ñu mën di si jëf ba faaw te yàggal fi suñu kilifa gii Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak mboolem njabootu Serigne Touba gépp jërë ngeen jëf